Exactement. معي السلام عليكم عليه السلام ما انا مثلا اما فو بوزو ولا بوزو نو يورو مو بوشا يفي ما لا لا نيا بوخونا مي رك لا باغ يفي دم يي دومي رامي دومي رامي باي بوغا دي اه ما لا مو هيو مو ناي لا لا يورو سام ها آه. يفي دومي رامي نان لا كو نيت ماني لان مو هيو فمان يفي دم تراب يفي فوكس رك لا مان ah yaa ngi saaga rek saaga saaga ba tey la moo xew. ndaw si. ba ndaw xëyagul suba sax di bëgg ay xameet di ko nuyoo di xëcc relation lu muy xëcc ay relation ah yëf ah, ah, ah. yi profito yi mooy lan yëf yi wëyu rek la man yëf yi solo par rek lan moo la métti si loolu lan mooy lan nekk si moom mais na bàyyi ndaw si mu mu xamandoo ñu comme tout le monde kon waa kër gi lu muy profito ci moom di xëcc xame di di nuyu ndaw si faalewu ko sax ndax yëgu ndaw si miinagul sant yi mi ngi koy lan la dafa mën yëf yi ko nakari ba nga xam nga ndaw si wala ndaw si ndaw si kenn xamagu ko yaa may dégg na ah. bàyyi mu xamandooñu comme ñun ñëpp rek ah, kon non xamu na ko moom moom noonu demu na si moom nan la demee ci moom yow kat yi mënoo def loolu man man naa ko mais man kenn du ma ndaw si fi ne mi ngi koy ndaw si xam ko na bàyyi ñu xamandoo ko mais di profité yëfi solopaar yi di lambar lambari ci kër gi ba ba léegi mbaay mbaay mbaay dafa ndànk mbaay xam nga sànq ba yaa ngi wax di saaga fii yow xam nga xam nga ko xam na mu ne ah doo dafa ndànk tu mu ne affaire jigéen bi noonu waru ta noonu nga ko si mu toogoon fii xam nga doo ko saaga yaa mën mu toogoon fii ma saaga ko aw gasi bu toogoon fii ma saaga ko non su ma yoon nekk ko xam mu naan ma oh, xaaral mu ñëw oh, xaaral mu ñëw léegi mu ñëw mu toog nga waxaati nga saago man damaa ragal li may wax bu taxawoon fii mën na koy fi doomeram ngay def loolu noonu tooñu la ndaw si mu ngi dëkk fii si néeg bii moom ni mu def ba xamul a ah, ndaw si dama nga def noonu nga xamul a ah, ndaw si mbaay moo gën tooñu baaxul ay yow xam nga lan la Koshita bu fekkee da ngaa par jëm ci moom nga aruma de kon noonu saaga bi noonu si nga ko saaga bi fësee fësee ñàpp xolam ngeen yéen ñëpp What's it? Dude. اوكي يا ربعنا سيزر بغرف عليك يلا مالا ماكس واو نقول عملنا لنا سيزر بغرف عليك Kojito wala Max ngoon réunion 16h ku waaj dem na nga dem nag balaa 16h nga ñëwaat bu ko fàtte. Hmm. Baye. kooku. wala Max. Maguette. waaw. ah na nga def Maguette. maa ngi fi ça va. alhamdulilah. taarikàlla. taarikàlla alhamdulilah. alhamdulilah. Eh, ngoon dama la ñëwoon si Ngoon am nañu réunion 16h. réunion ana Diouf juuf dafa dem chantier sixième bi sixième tabu la wala non non sujet wàllum kër gi la rek boo ñëwee di nga xam waaw damay bañ a toog di leen xaar te sama ventilateur dama ko yóbbu fële ca Mbaye Babacar mu defaral ma ko dafa dafa arrêté lu waay di yóbbu wala lu waay di doxi na nga ko doxi léegi léegi balaa ngoon seize heures fekk waaw naa moom daal bu ma fi toogee na ngeen wax lu am njariñ rek waaye tamit toog yàq fi sama temps te sama ventilateur bi dama damaa wuppukaay damaa dafa tàng damaa woor du ma de wax leen lu leer maa lu mel nii xanaa koor gi dalaa jàpp wala temps yi seet bay doxul <laughs> yow da nekkoo fi de màgget man à distance laay seet léegi ah, léegi avant ngay ñëw laa seetal la te nañ jon ca Amérique à ah. distance moo tax xëy ah. moo tax nga kon jërëjëf waaw waaw ci kanam bu jub nee nga ma ko rek waa Diouf nag dafa dem o chantier Mbaay taxawal. yow koy wëlis yow saw. ah koy wëlis. yow yow laay woo quoi. ab wolis ab kaldu lañ koy woowee. kaldu Wolis kaldu xaja moom wëlis. man du ma bu ma wëlal si xanaa woor moo la commencé jaxase moo tax ngay wax kaldu ab jullit laa damay woor waa léegi looy wax waxi kaldu dama ne wëlis ab kaldu xaj la ñuy wëlis kalbu la ñuy wax kenn wax kaldu ba tey waaw bul ma wëlisati waaw waaw da foo jëm ni yaa ngi gàddu sa wantiloo bii nga xam ni sa guddi day mel ni kara kara kara kara boo foo fajir kenn du nelaw maa tane ñu ko amut hmm? maa tane ñi ko amut leefaay di leen ba a rek te seerut waaw ñaari junni sax matu ko nga am ko nga nekk ci leefaay ndax. nay man jàkkaar chaque jour nga yóbbu ko réparé aussi yow. may fay courant. man damay fay nayu ma. voilà à présenter à présenter fay courant bi loolu laa lay bëgg expliquer quoi parce que Max wooneel. Maxati Maguette Maxati waa woo na la wax na la réunion bi tey si kër loolu wàllu Max la. la ma war a wax xam naa ko du yow yaa ma koy wax. waaw dañu war a wax ci affaire poste bi affaire kii yeeg yëpp di nga bañ a dem damay bañ ku daw réunion bi laay bañ. wuyu ma moo tax ma leen expliqué. saw man kër gi da ngaa loué ma loué. max moom la ñu jox wàllu ndox meeg wàllu courant bi ak lépp ak fosse bi moom bu waree wax dina ma wax te wax na ma ko ca suba. bul ma ah. waxati nag ndax waroo maa wax yow. yow loo may ah, wax yow laay laaj lan la. loo bugg munoo yam ci sa néeg ma yem ci sama néeg. waaye lii loo bugg yow. yoxu ëtt benn boole. loo bëgg laa bëgg xam. yow kay laaj laaj loo bëgg. yow laay laaj loo bëgg. man ragaluma la mbaay. waaw loolu yaa ko wax. ah ñetti fan a ngi nii maa ngi lay seetlu boo ma rombee di ma fëleli koo di ma sànni waale ay bët. daa lay xamal yaari mbir laa lay wax. lan man dëkk ba ma juddee ak ko ragal amu fa. man doomu du ma lekk ah. yow li la waa li war a def ci kër gi nekkal bu sa morom yëpp xëy liggéey nga nekk fi di lambar lambari mani ki nga teg bët dafa ñëw pour liggéey xam nga loolu gisu la waaw yow bu ma nekkee dem ngay ab nooxoor waaw li la métti na xam naa ko li nga nekkoon di wax naan ay siit internet bi di wax senegal du jël coupe te Sénégal jël coupe nit ñi di la def. man mii loolu moo ma dugal. yaa mën a fen ah sa yaa mën a fen sa vidéo bi muy yàkkamtee solu ba solu drapeau Gambie. yow oh. li nga sol du Sénégal nga sol. mani yaa fi wax Sénégal quart de finale lay yam dem na finale ku duul. waaw man maa woon kii bi maa woon Maxi mu woote réunion bi ndax maa ngi woon si liggéey bi amu woon conseil. mais léegi nag maa ngi si biir kër gi te gis ngeen ni foofu bi dafa fees te courant kër gi ñëw ni te facture bi vingt mille la. vingt mille. la te fosse bi quarante mille lañ koy vidé. mu nekk soixante mille. mille moo tax ma bëgg yéen ñi ku nekk def dix mille dix mille ñu mën kaa ngacc ngeen li jënti tamit facture bi nu ngi nu ngi koy fayee. Eh, xam nga non sow ñu nekk si weeru koor bientôt ñu nekk si weeru korité encore ah adduna noon arrangement la xam nga kër bi yi ma xoolee bayal bi noonu yaatu na mm. ah, ñu gasi par ñu ne ñoo fi nekk ay góoru mm. ñu jëli peeli ñu gasi mm. si ñu gasee ñu tànk duusi bi ñu sotti ko foofu ah après noon mu desi noon facture bi

man xaw naa d'accord si Kosita mii lu mu wax ndax suma entreprise bi charrette bi am na peel dégg nga mun nañ ko gas ndaa comme maman mii dafa ne loolu dafa salte dafa dégalaas mm-hmm. te ko bugg buggam mu bugg sa bugg bugg koo bañ bugg buggam bu a neexee loo bañ mu ne bañ naa loolu moo tax bañ naa gas bi léegi Kosita bay bay bayil ñu cotiser ndax maman mii loolu la bëgg mm-hmm. am ree ndigal mm-hmm. du dégg ah, ngeen baal ma je demande la parole ku ci ne li nga wax dégg nañu ko li ñi fi ne ñoo ko fi def mm-hmm. li fi ne mm. ñi fi ne ñoo fi def ah non non non balma Pas parce que man li ma ciy dem bàyyiwul ah toilette dem bàyyiwul kono yaa ngi dem si waaw kii ka si de ma part mm. dinaa génne ñeent junni vingt mille francs mm. ñaari junni ngeen wax ku nekk ñaari sama ñaari junni Diouf ma génneel ko ñaari junne maa la ko joxal joxale ah, ah, amul benn problème foog la séeréel ko ah. cent mètres foog la séeréel maa la ko may ci xol bu seet guy ndax sa liggéey demeegul noonu ñeenti junne laa ko ci taabal ji ku ko mën ak ku koy jéem nag du benn wax ju bëri ji mbele mbele coow la u génne def ko fi dëgg la kan du gas mukk ci ëtt bi di ko fi suul hmm. oto manque la ni uti hmm. mu def ko fi te ñoo koy cotiser lu waaye mënul da da ngay gaañ asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu Cheikh du ma bàyyi sax ba wax daanu quoi hmm. dégg nga seex mm-hmm. du ma bàyyi sax ba wax daan kii mm-hmm. yaa deux cinq jours xaw ma quatre jours bi mu ñëwee si kër géeg léegi mun naa ni wax gan la mm-hmm. waruñu ko sax boole si non déglu leen da ngeen di déglu da di déglu waruñu ko sax boole si asio yi deuxièmement fii man maa nekk ci booru duus bi man maa féete ci booru duus bi ku nekk mun naa la wax ñaata yoon ngay dugg ci douche bi par bëccëg hmm. waaw fii dafa am ñu war a joxe trente mille hmm. am ñu war a joxe dix mille hmm. am ñu war a joxe cinq mille ak say soixante mille déglu rek su ko defee mu nekk soixante mille ndax ay mag fii la ñuy jóg génn fii am na koo xam ni fii lay déclassé damay tëdd sama néeg dégg ko mu déclassé dokoti ah ah, ah ah ok nekku sama néegi nekk suma ne du yow ah ok néeg première néeg angal droite foofu laay fajar hmm. chaque fajar ak ak boori dix heures hmm. damay dégg borom tur tur tur tur hmm. tar tur eh, eh, tur tar ba eh, ñëw romba sama fenêtre bi léeg-léeg borom day ñëw ba foog ni ñi ñi gisatuñu ko mu takaw def comme par exemple rasuwaale tur ba mu jeex mu dugga bu toogee trente minutes nga toog nga déggaat mu jël satala bi demaat def fekk dafay kii kon nag li ngeen wax tegu leen ko si yoon. waxul ak yow man mii lay waxal. tegu leen ko si yoon. maa yay def la ma saf ku ma ku ma taatam. waaye ku moom sa taat wax ku moom sa taat ku moom sa taat ku ne moom moom taatam mm-hmm. kenn moomul fi taat kenn mm-hmm. kii du toog ci taatam lay toog mm-hmm. sama taat lay toog kii ci taatam lay toog yaa ngi toog taat wana ku nekk mi ngi toog si taatam waaye ku ne da ngay téye sa taat nit da ngay am euh, maîtrise téye sa taat eh. nga wut frein taat gamu kii mag la gis nga eh, kii mag la eh, xam nga mi ngi may déstabiliser ci mbooloo mi ah, kon nag li ngeen di wax tegul non teguñu ko ci yoon bu mu ngeen man bañuma joxe de damay joxe sama bopp 10 000 joxe ko di joxe ko 10 000 moom mi amoo génne ko li ngay wax yow bu fekkee da ngaa wax teg ko ci yoon ñoom 40 lañu war a wilen ma man seen wax ji yëpp ngeen wax seen biir man intéressé wu man facture bi moo ma intéressé ak force bi en tout cas daal nekk bu ne 10 000 na man loolu moo intéressé la 5 man bu man suba ma jox ngoon ma jox la 20 francs ma kii jeex na yéen ñëpp laay fëgg par benn amul problème bu la neexee sax du nga naan da ngay fayalaat sa koppar euh, kii mama mais lu muy joxe mama man cinq mille cinq mille ah non dix mille lañu wax cinq mille laa yor cinq gi ñu nekk si jàmm kii mag la yow nag mhm. wuy ma te gis nga euh, waaw Diouf waaw yow nag leen laa lay xamal li nga wax fii na nga fexal ba waxaat ko kan yow li nga wax dégg naa ko nang ma ko waxaat doxatoo yow man la ba nga ba nga ba nga tay la ci tay la ci ànd. boo doxatewaatee sama buntu néeg ma wax la mbaay doxaat nga. amul sax mu yow da nga amul taal yoo pete. kaka la say taata matul a pete. moo gën kii moo tax muy yow yaa tax muy bufule ci nit ñi yow yaa tax muy bufule ci nit ñi kii moo tax ngay bufule waaye yow ab tapet nga xamu la man naa càngam maay dafa rew waay yow maay waxate dellool mbubu imam saako bu ko eh, jek bara waay dellool mbubu imam saako bi déeti eh eh, eh, eh gamu Eh, dama daa amoon simmi kuloo ma gamu dama simmi kuloo gamu bañ ko gamu dama simmi kuloo gamu eh gamu gamu gamu gamu gamu eh gamu eh man ngay sot gamu yaa ngi dooru no yaa ngi dooru no